final bi kontaan nañ ci trop ndax té liñ leen waxone depuis le début du tournoi gis nañ ko mu nekk ci fair play euh, xalé yi def nañ ko ci fair play y a du beau jeu fi tay yaakaar naa stade Alassane Djigo déplacé wona ñew bayal Seigne Mansour Sy on a trouvé un jeu de qualité ay xalé yu am potentiel euh, football football bu neex ba tiro bi mo leen séparé. Donc c'est le, le, meilleur qui a gagné, ou bien c'est la chance qui a souri à l'une équipe, à l'équipe de les Amis de Pâté. Mais le Brésil n'a pas démérité. Donc nous sommes félicités, nous féliciter les responsables de l'Union FECSIEP. Nous ngi ci l'honorable député Pape Sanyambaye. Nous di le président Pékin Kilabok, la Nondom. Nous Ndom le maire Issa Diop di ci tous les responsables qui nga xam te Nous fait nañu si ñu ñu des ak pour wa xalé yag nañ ma paré na lo final parce que d'abord doomu Pikine la nekkoon ci milieu sportif bi football paré nekk comité directeur ci ASC bi nekk ci président nekk AF Pikine vraiment donc d'abord je suis un enfant du monde football de Pikine de manière générale. ensuite dañu am benn mouvement bo xamni mo ngi tudd union des forces de Pikine bo xamni on œuvre dans le social. et on considère que aussi li xale yi bëgg muy football bi aussi dañ ci responsable pour responsable euh, pour parrainer match bu notre seule ambition reste l'épanouissement des populations de Pékin. c'est notre seule ambition notre souhait c'est de voir demain ay équipe yu am toutes les communes et la ville loolu suñu ambition amuñu ambition bu gis magu Pikine vivre condition yu ñu war a ji yu ñu war a vivre li nga xam moom la Pikine askano mérito ñu am ko loolu mooy suñu ambition bu ñu xëyee gis ko rek ñun suñu xol sedd na. tournoi bi Copa Ramadan la ci weeru koor gi la doon daw match yëpp ci koor gi la doon daw mais ak événement bi nii final bi mënul woon nekk ci koor gi moo tax ñu bàyyi ba koor gi jeex ñu def ko di remercier monsieur Amadou Diagne parrain moyens yéen fi gis yëpp moom moo ko def waaw di remercier monsieur Amadou Diagne ak suñu yaay yeeg yëpp daal.

Vamos!